waaw li ma ci wax mooy nii euh, ñëpp xam nañu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar mu doon ñaar réew mi ak lu ci mën a nekk ci politique ak ci xëccoo ak ci ŋaayoo ci yenn kàddu yi waxtu bu ñu nee Sénégal rek Sénégal yëpp ay taxaw nekk benn jànkonte jafe-jafe yu réew mi di am moo tax bu président wootee ñun waa benn bokk yaakaar dañ ci kontaan lool xam ni loolu mooy yoon bi eh, boobu ba tey ñu ngi suivre eh, gisee yi muy gisee eh, leader yi fi nekk yëpp sensibilité yi fi nekk yëpp ndax sensibilité yooyu yëpp Sénégal lañ bokk sensibilité yooyu yëpp jàmm la ñu bëgg ci Sénégal sensibilité yooyu yëpp lu ñu bëgg mooy Sénégal jëm kanam kon nag bu ma leen wooyee ñooñu tamit nangu woote bi ñëw wuyu si ko dañu waxtaan waxtaan ñu jënn seede seede bu rafet ci waxtaani ñu ni léegi dañu bokk ci coalition au pouvoir mais dañu wone ni Sénégal motax ñu wuyu si du téré ñu am ñu gëm am nuñ koy doxalee su gannaaw su li jaaree man dafiñ tollu lu ñuy jiital mooy intérêt Sénégal yëpp maanaam njëriñu Sénégal yëpp moo tax ñëpp kontaan ci macha allah ñëpp di ñaan yàlla nag ndax fii réewu diine la

waneewu ko pour moom rek daf ko wane pour Afrique yëpp defe naa ne suñ ko defee nañ ko war a defee incha allah rabbi ah lépp lu ñuy yóotu rek suñ borom dinañ ko yombal. jërëjëf euh, président.